may Maymuna pour vous dire que réew mi dañ koy foowe dégg naa ci benn euh, déclaration euh, Mambay Niang au passage mu ne oui dem nañu def naa saisie ci euh, ay bien wu Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa jël këram gu nekk gu nekk deux cent soixante quatre mètres carrés. deux cent cinquante six. c'est deux cent soixante quatre je vous donne la bonne information. non moom deux cent cinquante six la wax. deux cent cinquante six c'est deux cent soixante quatre mètres carrés daf ko hypothéquer neuf milliards cent xam nga loolu la wax mais c'est archi faux. c'est quoi la vérité. ok la vérité xam nga wax bu dofee nopp yi koy déglu mooy ñite deux cent cinquante six mètres carrés. R plus 1 noo ko mën a hypothéquer 9 milliards 100. moo loo loo loolu moom jaaxal na nit ñi. xam nga loolu moo loolu moo lay wan ne ñoom xamuñu nu ñuy liggéeyee xaalis xam nga yow mii nga xam ne bi ngay ubbi sa projet bii danga def ay hypothèque yow xam nga ne kenn du hypothéquer 256 R plus 1 ci 9 milliards parce que xam nga ne matu ko mais xam nga est-ce que kër góor gi ñun ñi dëkk kër góor gi yépp Ousmane sonk R plus 1 la am man ma am R plus 10 nekk sur 400 mètres carrés waaw Ousmane Sonko bu mënee 250 mètres carrés mu hypothèque ko 9 milliards xanaa kon man sama R plus 10 sur 400 mètres carrés xanaa kon kat mën naa cee am 100 milliards. mais document bi Mame Mbaye wax ci wax ci du waxi nit. mais document bi mu dama la wax bu dofee nopp yi koy déglu. ñooy nite mais document bi mu exhibé nag. document bi mu exhibé boo demee def euh, demander état de droit réel. dañu lay jox charge yi nekk ci titre foncier bi neuf milliards et quelque la oui mais loolu sikap ñun ñi dëkk kër góor gi amul kenn ku ci mën a jël këram dem tey la ko banque parce que titre foncier parce que titre foncier global bi waa sikap ci seen bopp dañ ko jël def ci hypothèque bu quinze milliards ci assiette foncière ci assiette foncière bi maanaam deux cent vingt deux hectares yi nekk foofu yëpp ña fa am kër yëpp amul kenn koo xam ne mun na jël kër gi dem yóbbu ko banque parce que SICAP moom moo hypothéqué titre foncier global bi et pourtant on a fait une conférence de presse pour dire oui dafa jël kër gi daf ko hypothéqué neuf milliards cent moo tax ma ne la ñi ñu jiite bu ñu amoon tarafatal ay ni ci force occulte yi ñuy wax ñoom ñoo koy génne force occulte yi seen gént la. mais sànq ba tey yaa ngi répété Mansour Sy Djamil ne dafa tenir des propos. oui j'ai j'ai reçu un un message de Khalifa